asalaamaaleykum asalaamaaleykum nuyu naa képp kuy seetaan Sahel Network TV Aïcha teewaat si biir kër bi rek comme nuñ ko faral di defee ziyaare naa leen sargal leen di leen bëggee di ñaanal kilifa diine kilifa aaday di ñaanal tamit ñu tëdd ci lali hôpital yi kër yi ak ñiy doxantoog feebar yàlla leen yàlla dimbali fee ak jàmm jóg dem doxi seen soxla di dem ba ci prison yi tamit di ñaanal ñi nga xamante ne tam ñoo fa nekka yal yàlla génnee ñu ñu ñu dem doxi seen soxla ko faral di defee rek comme suma gan yi moom xam nga macha allah man moom yut si lay dalal képp ko xamante ne mu ngi yëngu ci dara rek dina ko invite fi bëgg waxtaan ak mom man nag xébuma kenn bañu ma dara man na nga yëngu ci dara rek nga ñëw ak man fi ñu pelloo macha allah kon nag suma gan bi dama koy bay mu nuyo rek wax leen mom moy kan suñu paré dugg si question assalamu alaykum wa rahmatulah comme ay noo ko waxé di ñaanal ñu tëdd ci l'hôpital yi ak ñu nekk ci projet yoy ñun di la ñaanal yalla na yalla suñu ñu dem ñi yalla na yalla fuñu dem yalla na fuñu joggé di la wax assalamu alaykum wa ma ngi tudda Mariama Kamara di fu processing Euh, maa ngi dëkk Santhiaba Souley Diop. Mm-hmm. Euh, di wax ne Aïcha jërëjëf si li ma invite si sa euh, show bi. thank you so much Mariama dalal ak jàmm yow tamit fii si Sahel Network TV parce que ñun dañ fi nekk pour youth si. Mm-hmm. ngeen nekk di yëngu si dara pour léegi tamit àdduna na ñëpp xam ne ne comme Gambia they are talented macha allah. Mm-hmm. waaw lan moo la tax a dugg sa business ak depuis kañ nga commencé di def business. business bi maa ko commencé last year July 2019. Mhm. Um, food processing daf too man dam xam nga toogantu ma nee. Mhm, so ma doon dem school like uh, arab school laa dem. Mhm. so su holiday bi tamit daf dee mën a like four months su tëjee school. so four months boobu noonu soo toogee dan dee dem comme ay daara nii uh, like daara bi xam nga ay ngoon la dee nekka. so ma préfère ne man ah man xaaral ma engage si dara tamit mu ngi fi toogantu kan. so ma gis uh, kii nii Ndiambe si Facebook bi Ndiambe. so ma like ko so si laa wax suma maam ne dama bëgg a def food processing bii nii mhm. daf ma ne so si laa dem si school bi Brikama ñu ko ooyee Jama School mhm. ko laa commencé waaye ngeen ne yam natural food uh, lan moo waral uh, turi yam bi parce que man bu bi dama foog nga ko defaree mm-hmm. so man tam ma jël ko di ko process di ko jaay loolu moo ma tuddee ko yam bi kon léegi suma gars yi gis ngeen ne leer na parce que yam bi moom mm-hmm. ñu ne sa sa uh, si yëpp comme natural food la nag naka nga dee jotee kon sa raw materials raw materials yi like comme dee rek um, like grano cake bi moom bu marché laa ko dee jëndee waaye kaani bi loolu si bi xam nga ñu tam dañ dee dem faama yi loolu di def so ma am fa benn client bu jigéen man xam nga moom jigéen yi rek ñooy la suma gars yi <laughs> jigéen ñi ñoom jigéen ñi rek la ñuy jàppale góor ñi ñoom ñëw leen toog si plateau lay yëngu bi su ko defee ngeen wax góor doole so <laughs> ñun tamit ñu bàyyi jàppale suñu moromi jigéen ñi rek so si laa jàpp moom moom as suma client so su amee kaani ma dee kool wala bi su yeexee la am na torop waam sax na daf ah, uh-huh. so ma suma mbokki kamara ko day nga ñëw ma dem suma uh-huh. booba soos bi neex na te di nga ko mën a cuisiner tamit am na eh, ingrédients yu fa nekk tamit xam ne pour cuisiner mu si kaani bi jarut nga jënd yow sa kaani bi rek nga jël rek nga cuisiner sa yàpp bi wala sa jën bi wala noo ko bugg defee rek neex la soo amee sa pepp sëpp sax sant ko si macha allah loolu neex na trop léegi nga dem bëgg a comme nga wax ñu yan façon products nga day gën a defar ak nan la gaay tudd parce que gis naa ne moom table bi moom macha allah macha allah nice na comme mu ko gisee rek pepper sauce la ak um, coconut ball koko mhm. ak uh, bi moom koko lañ ko defaree te boobu tam bi Gambie bi fii lañ ko dee jëndee mhm. bi moom jinjar la jinjar kandi jinjar bi moom tamit jinjar lañ ko dee defaree jinjar mhm. roo jinjar bi lañ dee jënda après ñu ko ah. ñu tooga ko mun koo defar xam nga mu saf daf suma ah, waaw xam yooyu noonu te jinjar xam nga dafa baax si yaram waaw dafa baax tamit si sotro bi moom ah. ba wala buy la dañ ko dee wol après ñu tame ko uh-huh. pour ah, suma mbokki jigéen ñi comme ni ma ko waxee rek pour noppal gars yi rek xam nga sooy defal sa ay nina jóob ay yooyu noonu bañ a jël buy bi di jàmba di soola mun ngaa jël sunu fi buy bi rek nga def sa dege rek nga defar natural rek ba di miit waaw pour jigéen ñi rek pour ba yombalal jigéen ñi rek moo tax ma def <laughs> waaye yéen Mariama daal moom jigéen ñi rek la fi toogal waaw léegi gaawal na kon nga ñëw si góor ñi si góor ñi rek eh, nga ñëw moom dañu dee jaay doole soo bàyyi ñu jàppale jigéen ah, rek waaw waaye foogu loolu tam ñooñu gën a bugg a si sauce bi parce que ñoom moom waaw loolu <laughs> gis dañ jël kaane rek moomale ko seen bopp ah, allah léegi ñu ñu gis ne comme yaa ngi dugal sa business léegi naka nga dee comme di def di patronise sa sa business. waaw ah, suma business bi comme like suma defaree dama dee def si suma su Facebook bi. Mhm. suma WhatsApp status bi so mhm. suma amee su ma defee rek adab dama am ay order ñu bugga mhm. so su ma nee ku bugga rek dama la dee indi ba su dee sax fi nga nekk léegi ban nomba nga dee gën a use pour sa WhatsApp page bi ba pare comme Eh, yow fan nga di gën di defaree sa sa lii da nga am bitik wala sa kër nga ko di gën di defaree mhm. suma kër laa dee defaree suma produit suma whatsapp number bi affiché la is allah loolu neex na kon noonu laa def ba ak yow ñoo ñoo daje waaw loolu neex na soo waaye ki comme képp boo gis daf di am yenn challenges ak difficultés yu nekk ci face léegi dama bëgg nga wax gars yi ñuy seetaan rek yow yan challenges nga di gën di face depuis boo bi. business um, expliqué laay challenge bu ma fi am difficulté bu mm-hmm. euh, a a a soo ko mm-hmm. defaree léegi su ma bëggee jaay pot bi euh, like two bi ma si defee suma ingrédients su ko bëggee jaay mm-hmm. suma mbokk dañ def suma own price bi bi lu ma fa fekk moo tax loolu moo tax ma defee ko loolu price bi mu seer ak tamit comme marketing bi tamit ak dribbling bi tamit daf dee mën a sonal daf ma dee mën a sonal tuuti ak place bi tam location bi comme like su ma bugga ko yee sancaba laa dëkk suñu yàlla ko ne waaye amul benn problème waaye man ah, dinaa la ko indil foofu noonu loolu suma ko dee gën a defee ndax fii a <laughs> yaa ngi doon wax ne comme da nga dem schooling pour jàng about business bi ni soo léegi is it necessary pour ñi nga xamante ne tam ñu ngi si business pour ñu war a dem jànga xam naka la ñoo businessé pour ñoo start seen business waaw loolu tamit man ko comme suma mbokki gambien yi la ndawi gambien yi nga xam ne mhm. comme ñoom daal noo ko mën a waxee rek ñoom dem bugg a di noflaay waaye comme raba raba waaw comme suma maas yi mel suma maas yi moom suñ jógee di dem raba rek da nga a xaalis trop rek nga fekk du loolu mm-hmm. dama faj suma soxlay rek loolu moo tax ma bugg a jóg di dem ah, gantu pour bañ a wéeru moo tamit moo tax ma jóg di def business bii ne mm-hmm. waaye tamit pour wax ne pour dem jàngal yi tamit jafewut mm-hmm. mun ngaa dem jàng ko ba pare nga ñëw di njëriñ sa bopp xam nga moo business dafa baax pour nga koo def tamit xam nga dafa fekk tamit sa sa ay xaalis ñu ko liggéeyal sa bopp sa bopp moo daaxa exactly moo daaxa pour nga a am sa own business uh, ne danga leen uh, li employ pour ñuy liggéey ak yow dama employ benn nit moo xam ne moo nekk di moo nekk di liggéey ak comme léegi wàllum delivery bi wala comme food processing bi macha allah léegi yow euh, naka lan nga mën a xamante ne loolu ngay xelal youth si mhm. ñoom mi nga xamante ne ñu ngi seetaan ba pare yow tamit yaa ngi nekk ndaw yaa ngi yëngu si wàllum business te euh, lan nga si gis sa bopp daal pour mun koo bokk ak nit ñi comme comme yuut si yuut si waa xelal waaw maa ngi laa wax ne comme ñoom tamit rek ñu def ni comme man rek bañ a toog jàppal sa tooglante sa loxo yi mhm. ñu jóg def dara dafa baax pour nga def mhm. a nekk si amul liggéey Gambia bi am na liggéey am na mhm. liggéey trop am na liggéey kay moo gën waaye léegi tam soo seetee tam am na xam xamante ne léegi wàññi ne damaa tukki de ñu ngi exactement parce que business bi parce que ku nekk yaa ngi gis ku nekk koo gis mu ngi wax ne business business dama bëgg a def business dafa baax waaw is better nga toog si kër bi sa loxo nga ne waa Gambie bi liggéey jógal nga def dara soo jógee rek nga di nga am waaye soo toogee xam nga ne job bi du la ñëw fekk sa biir kër nga ne bi amul liggéey mm-hmm. mm-hmm. ñu bari ñu ngi def business nekk koo mm-hmm. gis na dama bugg a def business a def business loolu dafa baax saro pour nga dee a balaa ngay joxe sa final man a comme ku fi ñëw mu léebal ma wala mu wéyal ma soo léegi yow dama bugg jox ma yooyu noonu benn waaye balaa ngay dem nga fàttali ñuy seetaan sa Facebook page ak sa WhatsApp number bi pour nga xamante ne bëgg nañoo jot si yam natural food si ni ñoo def suma facebook name bi is yam natural food am um, suma email bi is ykamara at 383 at gmail dot com mhm. then suma whatsapp number bi is 208 7736 soo ma si boo ma si jokkoo rek di ma am pour nga mun a am si suma yu saf yi. loolu neex na ba noppi. waaw léegi lan la ñoo uh, séntu yam ne in the next two years.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 عما يتشاءلون عن النبي العظيم الذي هم فيه مختلفون قل سيعلمون ثم قل سيعلمون شرح الله العظيم <laughs> ما يعملكم Thank you so much for watching. Okay. bye. bye. See you next time. Bye.